ñoom def def nañ ay ay jéego teg nañ ay jéego def nañ ay démarches yu bari yoo xam ni jégal nañ ko ministère la santé ministère de mu koy saytu te ñun dañoo dañoo dañoo gëm ni que ñoom il faut que ñu dimbali leen mu am ordre bi parce que ordre bi mooy tax ñu mun encadrer pratique de euh, sage-femme te loolu dina indi sécurité pour jigéen ñoo xam ne dañuy accoucher te tamit dina ànd ak qualité parce que yëpp dinañ ko mun a encadrer suñu amee orde bi bu baax a baax.